kaar yi mhm. nii nii euh, chauffeur yi nii ñu dawalee mhm. loolu kenn wax ko kenn du gis sa bopp di rey sa bopp waaw ah kenn du gis sa bopp di rey sa bopp waaw loo bëgg foofu xam nga mooy nit du rey boppam volontairement waaw mais problème bi ni ñuy reyee seen bopp volontairement hmm. mooy oto bi ñuy dawal hmm. organique oto bi day dee depuis mille neuf cent ka la ñu taxaw oto bi di xanaa du def visite technique te ñu ne oto boo xamante ne loolu beneen beneen beneen kaa ngay waxaat loo xam ne loolu beneen waxtaan la encore mais waaw mais mais état a maanaam état d'esprit nit yi waaw nga wax pour ñu jàngat ko waaw mooy ki jël mooy état d'esprit mm-hmm. parce que da nga wax les nombres de places dans les cars waaw ne trente places wala nangam ñu def ko soixante waaw donc kon loolu état d'esprit la nit ki ak gis-gisam ak xalaatam ni muy xalaatee mm-hmm. léegi organe oto yi nga xam ne dañuy dee depuis mille neuf cent parce que man yor naa oto. waaw xam naa li dawal. Mhm. vitesse yi oto di daw oto bu xasee daw quarante kilomètres à l'heure rek. Mhm. mu ngi dans la zone danger. Mhm. cinquante kilomètres à l'heure boo koy daw. waaw dugg nga zone danger. organe yi dañoo war a baax. frein dafa war a baax route lii dafa war a baax lépp lu nekk oto bi dafa war a baax te yow miy dawal da nga war a vigilant waaw da nga war a présent maanaam yow moment bi ngay dawal ba ngay wàcc oto bi hmm. da ngaa war a nekk ci sa bopp da ngaa war a tal sa bopp da ngaa war a nekk parce que ay fraction de seconde la oto ay seconde dawal téléphone sonné le temps que ngay sëgg di siggi oto ay seconde mën na daw un dix kilomètres benn deux secondes oto mën na daw deux kilomètres ci hmm. yenn vitesse yi muy toll wala trois secondes donc imagine léegi oto buy daw des kilomètres par seconde yow nga di ko dawal ba pare nekk di waxtaan waaw wala nga di ko dawal ba pare nekk sa téléphone waaw wala nga di ko dawal ba pare mu wóor la wóor yàlla oto bi ci boppam frein yi baaxul waaw wala nga di ko dawal mu wóor la oto bi pneu yi dafa usé waaw pneu bi bu freiné bu frein yi baaxee tamit oto bi day dem rek day dem ndax mënoo ko téye dëgg la ndax oto bi amul crampon yu mën a téye auto bi ci kaw tali bi ça c'est loolu lépp lu ñu war a jàngat la ci kaw tali bi. dëgg la ba limitation de vitesse yi mooy tableau yi nga xam ne mooy nekk ci kaw tali bi. waaye ñu sax mooy communication bi nga xam ne mooy la code de la route. jànguñu ko. mooy lampe de de la route. code de la route c'est lampe de la route mooy amul route tali bi mooy tableau yooyu ngay gis moo lay wax puissance bi vitesse yi sécurité bi danger yi yépp tali bi mooy communiquer ak yow. mais sëñ bi foofu bu ñu fa parce que gis nañ ni tey da ngay dem fi nga xamante ne mooy euh, euh, examen code trois questions la lay posé bu nekkee oral la ah tey bu ñu nekkee si salle bi nga xamante ne yaa ngi fa Fadel a ngi fa maa ngi fa Buuba a ngi fa tey ñu interrogé Cheikh Omar Diop mu njëkk a wax bu nee lii la ñenn ñu si des moom la ñuy toog. man bu ñu ma oo woon may ma permis waaw man waaw bu ñu ma wax ma ay questions yi nga dafa sori. waaw man bu ñu ma oo may ma permis su dee ma a dinaa xam ne waaw loolu nag. loolu laa lay nag mooy nit ñi lañuy defar du code du problème problème bi du problème fa ñuy joxee permis yi. ah kon ça n'a rien à voir déedéet nit boo ko jëlee. mu nekk koo xam ne yàlla dafa dogal ci moom. dëgg la xelam wàññeeku. Hmm. nga boole ko ci société bi. sëriñ bi lu kooku def yaa ko yow yaay responsable bi. waaw mais nit ki la ñuy defar pas pas permis. mais nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem defi per ñooy ñooy ñooy dem defi loolu te ñu ne pour nga am permis pour nga pour nga dawal foog nga am permis léegi ci anam bi nga war a amee permis voilà léegi xam nga loolu dafa am ay fay yu am ci àddina ci Sénégal voilà ci loolu léegi fay yi dafa yaat dafa bari waaw bu ñu ko bëggee wax yëpp du jeex du jeex waaw dañuy seet xam ne moo moo attan suñu émission dëgg la ñu communiqué ci moo tax man may daw yu <laughs> yaa ngi dégg yaa ngi dégg waaw parce que loo ci wax rek da nga ko argumenté dëgg la te day jël temps léegi nag li ma mën a xam man waaw mooy Sénégal dafa bëri lu retard lu retard dans la maanaam soo koy globaliser waaw dafa bëri ay retard yu bëri yoo xam ne daf ñu dab ñun en tant les Africains sénégalais. Mhm. dafa am yu retard yu parce que Sénégal dawee kanam gannaaw lay dawee. Mhm. loolu mooy suñu problème. maanaam ni vitesse course bi kanam la. waaw mais ñun gannaaw la ñuy dawee. moo tax yéex nañ moo tax non dañuy gën a dañuy gën a wàcc. contre carré la ñuy def voilà maanaam bu nit ñi di daw ñun dañuy da dajeeg nit ñi di dem. imagineel imagineel yow <laughs> euh, lu mel ni tey Sénégal ñu ne léegi quarante trente neuf personnes dee nañ. waaw léegi yow même pas une semaine nga jël nga jël dogal nga ne léegi oto yi wuñ dawati guddi dinaa ñëw ci ndogal yooyu balaa may ñëw foofu noonu ndogal yi moom mooy doon deuxième point bi dinaa ñëw ci avant ndogal yi parce que point yi nga xamante ne génne nañ ko ak grève yi mais ci léegi léegi ci comportement yi lañ nekkoon nii nii nii pour yow sa jàngal lan la war a teg pour comportement yi ñu mën ko soppi lan moo war a nekk solution. solution yi mooy communiquer trop communiquer. trop communiquer beaucoup com beaucoup communiquer. beaucoup communiquer. ndax nit ñi sooy wax lu bari. Mhm. bu yàggee dañ bàyyi xel ci li ngay wax. d'accord mais Sénégal on communique mal depuis ak communique peu dañuy wax ndaw wax lu bëri loo xam ne amul sens. Hmm. dañoo waxut li ñu war a wax. Hmm. sensibilisation yi ñuy def nit ki bu waree ñëw ut permis hmm. yaa ngi dégg ñu sensibiliser ko xamal ko li ñu koy jox xamal ko valeur li ñu koy jox xamal ko moom ci boppam danger yi mu nekk di ut si. kuy ut si permis dañ la war a wan ne yow da ngay ut si. lu danger da ngay ut si. lu dangereux c'est loo xam ne sa vie mu ngi ci nekk booy dawal à tout moment bi ngay départ ba bi ngay ñëw sa kër. Mhm. Hmm, yow mën ngaa rek respecter sa code la route. waaw mais am kuy nelaw fële ca àll ba jógee fële ñu fekk la fa. Mhm. xam nga loolu moom mooy ci nekk wala nit mën ngay dawal respecter sa code mhm. am benn benn sàmm boo xam ne ma nga yor ay gàttam fële. war a contrôler ay xaram wacc leen ñuy taxawaalu ci kaw tali bi. billaay xoolal deuxième accident bi li ko indi mbaam la doon mooy mi kër la génnee. Oh. te mbaam mi ko waroon a yeew. dëgg léegi mbaam moomu noonu comme moom mbaam ma uh-huh. ñi dee ci ak ci daal bi yëpp comme moom la ko yàllay topp ah laay ñi ki moom mbaam mi waaye moom mbaam ba muy génn ka tàgg tàgg déggoo li ma la comme moom ma ñi dee ci accident bi yëpp ci xam lañ nekk ah, loolu métti na de sëñ bi waaw lu mu ci moom xëy na peut-être dafa demoon daw dépense moom moom moom mbaamam ngi ci woon moom moom mbaamam waaw mbaam mi nit nit ñi ci dee ah. ñëpp ci doxam gi lay aju ah, ndax moom moo sànni juram waaw ba jur ga sabab dee déeg yépp ci kawam lay dellu bu ko état reconnaître ci kawam moo ko moom su ko ak état reconnaître lul moo ko moom ndox moo wacc mbaamam mi ba mbaam ma dem ca kaw taliba tali bi oto bi ñëw mbëkk ko nit ñi daal di ca dee loolu moo ko def mujjee naa métti waaye sànq dama la dégg nga wax lu am solo ngeen ne ma euh, il faut communiquer beaucoup communiquer mhm. dafa am benn philosophe bu doon wax am na foo xam ne bu fa tolloo dafa am la politique de Euh, euh, du baton ou bien de la carotte. Hmm. mooy maanaam des fois carotte bi mooy nga wax nga d'accord ñu ne voilà bon bu des fois nag comme ñun sénégalais duñ dégg mooy des fois nga andi bâton bi yat bi. te ñun à chaque fois ñun Sénégal. toll nañu communication. bu ñu communication. kiiwul du dem. communication waaw. pour l'État. Mm. c'est pas la carotte c'est le bâton. Mm. c'est le bâton. Uh-huh. c'est la population. ñoom ñooy communiquer par la carotte. Ah. mais l' état doit communiquer par le bâton. ah mais kon day métti. non ah, sëñ gisoon nañ fi nag ba ba dëkk bi tàngee noonu noonu ba ba premier ministre bi euh, ministre kii bi euh, génnee noonu wax affaire yi naan ba ba mu menacé euh, gars yi tamit dégguñu de. dama ne. Ah. comme na toogal da nga <laughs> waaw bu nekkee bëgg nga jàmm de. waaw moo tax communication ak état <laughs> du carotte bâton la. <laughs> yaa ngi dégg. Uh-huh. état bi bu jógewoon rek sévère ci kaw euh, euh, euh, tali bi. Mm. jël ay mesures yu restreint mm. da teg ay daan yoo xam ne du doon tëj nit ki. Mm. mais dañ lay liggéeyloo eh, weer bu nekk nga fay vingt cinq mille wala trente mille wala quarante mille wala chaque jour boo liggéeyee ñu jël trois quarts sa sa sa liggéey. naa la dara Sénégalais xam lu mu gën a bañ ku tik ci salaire am. voilà léegi nag soo defee noonu. xam nga tubaab yi oh. xam nga tubaab yi. Uh. ñoom booy liggéey duñ la déranger man dem naa Dubaay waaw. fekk benn waay bu gaare moto vélo vélo vélo moto yii. waaw engins yi ñuy wax Jakarta. waaw la gaare fa mu war a gaare bi ko waa ji facturé bi ñu ko calculé ci CFA huit cent mille la. allahu akbar waa ji dafa taxaw di jooy. taxi Dubai. waaw. am na foo xam ne ba fa bëgg a gaareloo ñoom ñu toog di la jooy nii moo leen gëlal ñu gaare ah, amande boo xam ne moo gën a cher seen oto bi léegi fii nag dañu la te nag par la force di ko fay par A da nga ko fay par B di ko fay léegi fii ñu ne la taxi ne dañuy fay droit de stationnement fu leen neex neex fu leen neex loolu dafa nekk loo xam ne ci éducation la ak état bi nga xam ne moo ëmb réew mi donc l' état moo war a organiser moo war a réglementer macha allah loon donc ñun dañoo am état nekkuñu ay nit ñoo xam ne dañoo nekk euh, comme ay gétt xar ah. nga xam ne dañoo dajee ci benn barab rek ku mu neex rek def sa morom loola lu ko eh, neex loolu nekkuñu ci dañoo am état dafa am état bi dafa am muy wax li ñuy wax état de droit lañ nekk mais yow sëñ bi xanaa da ngaa liir ay ñoom Jean-Jacques Rousseau non man damaa nekk nit <laughs> xam nga xam nga philosophie man sëñ bi daal xam nga dafa am philosophie boo xamante ne li nga wax nii loolu la wax waaw mu ne dafa am benn livre moom da ko tuddee état de nature mm-hmm.

il faudra l'état ñëw ñu teg ay règles. Mhm. léegi nag Jean-Jacques Rousseau loolu la wax te nag te Jean-Jacques Rousseau lu mu wax noonu. Mhm. yow si nga ñëw nii ma ne ci yàlla. waaw xam nga boo jàngee alxuraan. Mhm. nekk euh, borom xam-xam ci wàllu euh, euh, l'islam. gën a cultiver les philosophies. xam nga damay wax ne un savant. c'est le savoir qui vient dans le corps de de de de. maanaam humain un humain. différent mhm. loolu mooy un savant. Mhm. le savoir. le savoir mooy xam-xam. moom la moom la Socrate doon wax savoir être ak savoir faire. voilà léegi nag tous les sous tous les savoirs. Mhm. savoir léegi nag soo ko amulee doo mën a raisonner. doo mën a am raisonnement bu normal doo mën a am analyse bu normal doo mën a am pédagogie. sëñ daal foog ñu ànd ak moom ñu bind livre. waaw doo am doo mën a am péda doo mën a am péda doo nekk un pédagogue. Mhm. doo mën a nekk ku am pédagogie quoi. parce que parce que le savoir xam nga li may wax gars yi ma ne leen ku bëgg am xaalis. Hmm. dafa am des planètes yu ñuy wax savoir. Mhm. avoir voir pouvoir. <laughs> yaa ngi dégg il faut nga il faut nga dépasser la planète planète savoir mooy savoir mooy xam-xam il faut nga am ko <laughs> yaa ngi dégg. la la planète voir pour que foo ngay gis di xam. pour nga mën a traverser planète voir léegi nag planète voir soo ko rombee da dem ci planète avoir yaa ngi dégg léegi nag soo demee planète avoir ci ngay soo ko demee planète pouvoir waaw boo àggee planète pouvoir nag foofu nag ngay nekkee un chef nga xam ne léegi da ngay diriger da ngay jiite da ngay joxe ay ay ay orientation parce que day fekk nga am pouvoir faire pouvoir savoir pouvoir avoir pouvoir pouvoir pouvoir yooyu ay pouvoir la dans le monde des pouvoirs. léegi yow suñ bi man damay laajte ñoom buuba bu ñu xëyee nii nii nii ñoom ak ñëw fa ne du ñu xëyee ñëw toog nii rek. dara dana la non <laughs> xanaa guddi gi yàq <laughs> guddi xanaa guddi demee ba ay ay vingt trois heures. Ah. wala zéro heure. Ah. moom dañuy lal dars nag boo oh. xam ne ci xam-xam kese la ñuy waxtaanee. boobu maa ngi nelaw nag. <laughs> gisoo gisoo as benn démb. dañuy waxtaan man ak moom ba ay deux heures du matin man ak moom ak buuba waayi ba dañuy ta bëgg war a ñibbi dañ ñëwi ba deux heures du matin bu buuba ne as ci as kon na buuba buuba yow lii la nga may xañ quoi yow lii nga may xañ kon <laughs> macha allah am na solo pour wax leen ne gis ngeen xam-xam rek ah mooy mooy lépp euh, ñu kon ne ci loolu euh, comme li ñu doon wax léegi nii mesures yi nga xamante ne euh, état bi jël na ko vingt et un mesures la yoo xamante ne plus de vingt mesures plutôt yoo xamante ne gars yi ñu ko teg mais ñoom d'accord ci ba ñenn ñi nga xamante ne tey jii ñooy chauffeurs yi ñu ngi grève depuis démb ba léegi ak ba barki démb ba léegi ñu ngi woote grève am na ñenn ñi nga xamante ne d'accord nañ si am na ñenn ñi euh, yaakaar nga ni solution mun na am ci waxtaan par rapport ak transporteur ak état première chose li état waroon di ko def mooy def lu arrange transporteurs yi. premier lu arrange transporteurs yi. waaw mu waroon di ko première chose. mais sëñ bi nag transporteurs yi kenn mënu daw seen kii. ñoom leen arrangé mooy xaalis. déedéet du leneen déedéet déedéet. lan moo leen tali bi dañuy daw guddi waaw dafa war a am trait yu weex yi man dawalkat laa waaw man derul vitesse man damay daw vitesse du ma dawul nag moo tax du ma jënd oto bu <laughs> ah, yéex bu mag nga wax la oto bu ma yor nii huit cylindre la du ma dawal lu dul huit cylindre te sama dawal lu mu néew néew dina def cent cinquante deux cent man damay dawal oto deux cent cinquante kilomètres heure dawal naa ko xam nga loolu amul sax tali Sénégal moo ko mun dawalee. dëgg la mais man dawal naa oto deux cent cinquante kilomètres heure. Hmm. pour xool puissance oto ak danger oto ak doole oto ak oto nu mel. ndax man na yor naa may Maybach Maybach ma yore woon dafa gaaw woon. mooy Maybach comme bi président Macky Sall lakk la woon amoon naa bu mel noonu. boobu dawal naa ko deux cent cinquante kilomètres heure. amoon naa hmm. benn BMX 5 boo xam ne. BM euh, kilo sport la woon. Hmm. Euh, séquence euh, système bi euh, séquentiel la. man damaa gént sax nga may ma ba yem. <laughs> loolu mën na nekk nga gént moom dëgg la moom. <laughs> Ah, ah, yaa ngi dégg. macha ah, <laughs> uh-huh. mm-hmm. dawal naa ko deux cent cinquante kilomètres heure. Mm-hmm. donc mais bii moom système américain la. bii bii boo dawalee cent kilomètres heure da ngay am deux cent. bi da ngay dugg sax foo ne avion nga nekk. voilà léegi kon xam dawalkat laa te pilote laa man yàlla dafa ma defal macha allah. Hmm. ki corrigé sama dawal. Euh, mooy deuxième personne bi dàq dawal ci àddina. mu corrigé sa dawal. waaw moo ma corrigé dawal. ci benn ngoon. ah bon benn son la ma corrigé sama dawal. ne ma ma soo ko bëggee dawal moom dawal nag oto 417 kilomètres heure. Ah, waaw ndax moom nee na moom dawal oto sama benn bi ma yore woon mhm. bi ma ko ko joxee bi ma ko dawalee daf ko dawal ba ñëw gaare ko taxaw di jooy mais sëñ dafa mel ni yow da nga am passion ci oto i man mooy sama natt gannaaw kër ak njaboot ak jaamu yàlla yooyu non man oto moom bul sonn li ma ci li ma ci changé du jeex man sama xaalis yëpp oto ko yàq oto macha allah ndax dama am euh, euh, passion bi man mën naa jël oto oto def naa ci cent millions def naa di gëkkati naa cent millions dund ko oto donc xam nga kooku xam na oto bëgg na oto dëgg la donc man yàlla daf ma natt ci oto xam naa ko donc man mën mhm. naa wax ci vitesse mën naa wax ci dawal mën naa wax ci prudent su ma yebee sama njaboot ni may dawalee bokkut ak su ma yebee man kenn nu may dawalee su ma yebee njaboot jàmbur mhm. ak ñeneen ni may dawalee du man sama oto boo duggee doo wax su ma départ doo wax dëgg la da ngay xam ne kii dootu dootal talati man du ma waxatee yow dootoo waxatee ak man parce que yow ti tajum bopp da ngay tal sa bopp parce que man du ma fu fu ma man sama dawal mooy su amee danger du ko yurundu dama koy éviter waaw loolu mooy li gën a neex ci a dafay am ay éléments yu lay jiitu ci dawal. loo xam ne booy dawal. Mhm. ñoom ñoo lay jox yoon ñoo lay jox ay informations. d' accord bés boo ignorer les informations que tu reçois oh! dans la dans les vitesses. lakku nga yàqu léegi nag bés boo gisee danger. Ah. sa instinct ñoo koy détecter d' abord d' abord. waaw da da ngaa war a eh, rey li li eh, vitesse bi bul dem ba egg pour xam lu xew. da ngay dindi lépp luy vitesse ci oto bi. Mhm. ba nga àgg ci obstacle bi nga soog a xam lan moo xew. dëgg la loolu mooy tax doo am danger te bul yàkkamti bul foog ne mukk oto bi développé na bañ perte développement auto bi bu mu la taxa bañ a rey vitesse bi ndax sa sécurité yow d'abord ndax soo ignoré vitesse bi hmm. ak développement oto bi ndax bañ xam nga oto boo freiné da dangay perte sa développement sooy démarré waat da ngay yëkkati waat mu jógaat loolu loolu soo ko nangoo accepté sa xol mën nga dawal vingt cinq ans wala trente ans doo mës a xoos oto mais dof yi nga xamante ne dañ lay fekk nga taxaw di daw ni ñu la rël nag. seen ay problème du problème dawal. Oh. problème mu problème mu éducation la wala problème organe oto. mais bu dee dawalkat dëgg. Hmm. am oto bu baax bu normal. Hmm. respecté code de la route. Hmm. mën na dawal cent ans du xoos oto jàmbur. lan nga yaakaar ni solution bii bu ñu ko tegee rek. Euh, Euh, euh, balaa may ñëw ci beneen point parce que ñenn ñi. nekkoon di joxe ay tali tali yi gis nga les. waaw tali yi bande yi blanc yi nekk ci ko tali bi. waaw yu weex yooyu. Mhm. lu lu ko gën a important amul ci tali. Mhm. ñu dindi doo yi. Mhm. tali warul am doo daal. la ralentisseur la war a am. yaa ngi dégg ralentisseur mooy les moyens de doo yaa ngi dégg mhm. mooy nga xam ne boo ci essayé rek da nga mën a yéeg wàcc dem mhm. parce que am nañu dee doo daan moo leen rey dëgg la am nañu ñàkk seen ay oto doo daan moo leen ko xañ li nga xam nga lu ko wal mhm. doo daan day am du am signalisation yoo xam ne da lay signalé ne yaa ngi ci jëm ci doo daan te beneen bi ci topp mooy doo daan dañ koy monté ba pare duñ informé duñ dem ay système d' information pour informer les chauffeurs. ni doo daan tali bi na doo da ngay daw maanaam da ngay dem waaw doo fa fekk doo daan. nga wàññeeku. fekk fa doo daan fekk daan. te léegi koñ yi sax da ngay dugg gis ñu defal seen bopp doo daan. man. Hmm. bi may dem Saint-Louis. waaw deux cent soixante sept doo daan compté naa ko si deux cent deux cent quatre vingt doo daan. ci diggante Dakar Saint-Louis. Dakar saint booba mooy deux quatre deux mille dix huit. deux mille dix huit deux mille boo fa demee di nga fekk mille. daa ngi lay léegi imagine Dakar trois cent kilomètres. 300 kilomètres moins de 300 kilomètres nga def 297 doodaan sama buntu kër ba biir Saint-Louis loolu c'est c'est énorme comme si que ay nit ñiy tawal comme comme ay xar lañ. c'est énorme c'est énorme yaa ngi dégg hmm. loolu loolu loolu loolu kenn mënu ko concerner. kenn mënu ko concerner pour ñu tëj parti boobu noonu ñu bari nee nañ accident yi c'est pas naturel parce que am na ñenn ñi nga xamante ne jëloon nañ leen tamit ñuy wax ñenn ñi ne boo xoolee am na guy gu fa nekk ñenn ñi ne am na foofu tali yooyu noonu lu muy am accident bari na. Euh, ñenn ñi ne ne daal du neen. waaw am na si quelques accidents waaw. Ah. am na de quelques accidents yoo xam ne c'est pas naturel. ñaar yi am mujj dafa am ñetti catégorie yoo xam ne ñoom dañuy soxla deret nit. ñan la satan euh, iblis. iblis bu faible day def sacrifice humain pour amaat pouvoir loolu li ñu xamuñu ko. Oh. beneen bi ci topp mooy li ñuy wax dëmm ci ci wolof. dëmm dafa am ay espèces yoo xam ne dañuy soxla deretu nit. waaw yàlla moo leen bind. duñ mhm. nit duñ borom xam-xam dañ may laaj lu lan la ma la leen dëmm la dañ koy woo ci olof léegi nag dañuy wax fu ko yàlla wax ci alquran ma leen soo demee ci wa yaxluqu maa laa taxlamuun bind naa lu ngeen xamut foofu nga koy fekk soo demee ci alamal insaan maa lam yaxlam fa nga koy fekk da yàlla day bind ay mbindeef yoo xam ne gannaaw mbindeem la koy bind mu ngi mel ni koonoo xirdatatan xaasi ina nekk leen ay golo fekk nit ñi lañu woon ay nit lañu woon yàlla transféré leen ñu nekk ay golo mhm. léegi ba léegi yàllaa ngi def loolu ci ñu muy mere mhm. mais les prophètes ñoo ñu doon jox les informations mais les prophètes non plus là léegi prophètes yi nekkatuñ bi yàlla day def te du wax ak kenn mhm. léegi nag dañuy jékki-jékki am benn espèce bu am te duñu xam lu cause espèce boobu lu ko waral mais man mi nga xam ne j'ai damay reçu damay jot ay information yàlla su defee dara su ma xoolee mën naa comprendre le pourquoi. alquran bu jindee gindee lay xam ay la mutasaabihaat mën naa ko traduire. alif laam miim bi nga xam ne allahu ahlam bi mu laa di la ci borom xam-xam yi di wax mën naa ko traduire. dégg naa alquran ci façon boo xam ne ci ci waxam ci làkk arab waxam ci na ci làkk alquran dégg naa ko. dégg naa donc dafay am ay mbindeef yoo. xam ne mbindeef yooyu waaw mooy ñaareel bi. jéggi dayoog mbonteeg mbindeef yi mooy am yàlla mere bu leen meree mën na bind mbindeef yoo xam ne seen melo jëpp gi mu leen di jëpp moo koy waral ndax banoo Israil la bi ñu àndee yonentu yàlla Moussa. Uh-huh. dañ ko weddi di ko saboté di ko toroxal di ko def lu ko nekk ba ci leneen yàlla meree ba leneen nekk leen ay golo koonoo crédatan xaasi ina d'accord yaa ngi dégg iblis mi nga xam ne saay-saay la hmm. meram yàlla moo ko tax a nekk iblis mais jinne la woon waaw da ko da ko ëlbati ne mu nekk leneen waaw donc am na mbindeef yoo xam ne danañ ñuy am fekk amuñu woon amuñu woon waaw moo bind naa loo xam ne xamu leen ko xamu leen ko xamu leen ko woon daal mhm. yaa ngi dégg waaw donc loolu mooy tax ñu ñuy wax ñooñu mbindeef yooyu mhm. dañuy soxla deret nit donc mooy dëmm yi nga wax dëmm yi dëmm yi waaw man xam naa leen yàlla moo ma bindal yàlla moo ma may xam-xam ma xam leen lu ñu yàq mën naa koo xam bu fi nit ñëween tey dëmm jàpp ko wala nit ki ci boppam nekk dëmm bu dikkee mën naa ko dindi si sur sur place macha allah ndax am na benn waay bu fi ñëwoon moom dëmm ji waaw mu ne ma mu ne ma awma indi moo ko tabax da nga dem toppatoo ko nga ñëw mu dem toppatoo ko ñëw mu dindi ko ci même jour bi mu toog fi mu la ilaha illallah mu mu dem donc loolu jàngale naa ko ci Walfadjri mhm. bu ñu ma invité foofu plateau ma wax leen lan mooy dëmm ci dit tas na ay loolu rek la émission la tas na ay mbokk tas na ay famille uh-huh. ñu nit ki ñu xool ko ne ko yow dëmm nga mhm. ba nit ñi da ko daw loolu tas na ay famille mhm. waaw am na ñoo xam ne dañu am rab nit ki nga gis xam nit ki muy daanu nga xam ne kii dafa am rab dafa am yoo xam ne jinne yooyu ay borom xam-xam lañ. mais dañuy dañuy lëkkaloog iblis. ñooñu tamit mu ñuy def ay sacrifice pour yokk seen pouvoir dañuy soxla deret nit. macha ci xeeti jinne yi. Ah, léegi nag am na si jinne yoo xam ne ñu ay julit. Ah. am na ci jinne yoo xam ne ay julit lañ. Uh-huh. moom yàlla yàlla di wax ne. Euh, wa maa xalaqtu jinne wal insa illaa liya'buduuni man dama bind nit ak jinne bindu ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma rek ndaxte moo tax mu bind leen. léegi jinne yooyu nga xam ne ay jinne lañ te gëmuñu yàlla. Hmm. dañu nekk ay humain yoo xam ne maanaam ay ay ay estis waaw ñu am du dund am xol am bët am yaram am yaay am baay. Hmm. yaa ngi dégg moom lay wax yàlla yaa ayyuha naas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suhuban wa qabaila li taxaarafu inna li taxaarafu inna akramakum inda allaahi atqaakum. Hmm. yàlla mu ne yaa ayyuha naas ay eh yéen nit ñi. yéen a ngi dégg yéen nit ak ginne mhm. inaa xalax naakum min zakkarin unsaa ñun yàlla ñoo leen bind ngeen tukkee ci góor ak jigéen mhm. ñun yàlla googu sañ-sañab yàlla bi bind nit mhm. ak ginne te tàgguwut kenn xoolul solution kenn xoolu xaatu kenn mooy inaa ga yàlla du jaari yàlla bu waxee inaa ñun yàlla moom ak sañ-sañam moo tax mu naan inaa inaa googu sañ-sañab yàlla la ci bi muy bind nit ak ginne du kenn du dara du lenn lu sabab nit am ndax seytaane bàkkaar a tax mu am yaa ngi dégg mais nit nag ak jinne yàlla ko bind ci sañ-sañam moo tax mu ne innaa nahnu da nga koy dégg ci alquran daa innaa nahnu naral naa zikra wa innaa lahu la haafisun yaa ngi dégg la haafisun googu yàlla wax noonu ñun yàlla ñoo bind alquran ñoo ko wàtte ci ñoo koy wattu yaa ngi dégg ñun googu sañ-sañam bi lay utiliser ci ci ñun gi yaa ngi dégg léegi nag su fekkee wax na wax na yàlla wax na ñun yàlla yaa ayyuhan naas e eh yéen nit ak ginne mhm. innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa maa leen bini sama sañ-sañ waaw wa jaxalnaakum shuuban wa qabaa'ila man maa leen def ay giir yu utee mhm. yaa ngi dégg ma def leen ay kuréel def ay kuréelu nit ak kuréelu jinne waaw ngir lan li taxaarafoo ngir ngeen xamante waaye nag su ngeen xamante inna akramakum indallaahi atqaakum ki gën ci yéen mooy gën a ragal yàlla am na jigéen yoo xam ne ragaluñu yàlla ah. dañuy dañuy soxla ay dañuy soxla deretu nit waa ci lañu ci lañu léegi dañuy am na ñu jinne yoo xam ne dañuy rey nit accident yu bari yi ngay gis ni ah. jinne yi ñooy fel nit ñi oto yi. am na si jinne yoo xam ne nit ki buy départ di dem. waaw balaa muy buy yëg oto bi. waaw lañ koy dugg lañ koy dugg. waaw bu dawalee ba ci biir kaw de tali bi ba oto bi nekk vitesse mu ëf ko ngelaw mu nelaw. oh léegi su ko defee nit ki day nelaw. Ah. fekk jinne ji moo ko nelawal oto moom du ci xam dara. du ci xam dara léegi am na ci jinne yoo xam ne seen kattan seen pouvoir àgg na ci. su nikki dawal ba dawal ba daw vitesse. Mhm. dañuy rocc nit ki ci jëmmam. Oh. léegi dafay mel ni nit ku existeetul. existeetul moom du yëg sax ne dee na du yëg sax accident am na. àllaaxira lay yeewoo ji. fekk oh. xam ne dee na. loolu fekk jinne seytaane dafa am oh. jinne yoo xam ne seen pouvoir dafa àgg ci kàttan ci foofu. léegi nag mooy waral ñuy wax ne war nañ def sarax. waaw war nañu def ay ñaan. war nañu def ay ñaan parce que jullit waaye war nañ tamit mën a muslu oto. moo tax ñuy wax ne sëriñ amut. ma ne leen mm. jàngu leen baqara xanaa baqara saaru baqara waaw mooy le soraat de. du du bëf xam nañu koy waxee. Uh-huh. soraat bi nga xam ne moom la ñu tuddee sa saar saaru nag. saaru nag mooy Bakara. Bakara mooy saar bi gën a gudd ci alxuraan. waaw yonent yàlla Moussa foofu yi dañ ko defoon sëriñ. waaw bañ ñëwee ba am seen mbokk mi bañ ko rayee. Hmm. mbokk mi dee ñu bëgg ñoom ñu wëlbatiku ñoom ñoo rey mbokk mi ba pare ñëw di jooy di wax na seen mbokk bi dañ ko rey dañoo bëgg. Hmm. ñu xam kan moo rey seen mbokk. ñu ne léegi dañ dem ci Moussa mu ñaanal mu ñaan mu ñaan yàllaam bi pour mu wan wax wax feeñalal ñu mhm. kan moo rey suñ nag suñ mbokk bi waaw ba ñëwee ne Moussa addoxon la laa rabaka ñaanal sa sa yàlla ji mhm. ñoom gëmuñu woon Moussa mhm. yàlla na Moussa léegi wax la ñu rey nag Moussa def nañ ko ñaan kat waaw ñu bëgg ay nit ñu dem ci nit ñaanloo ñaanloo ko yàlla du warta nekk quoi ku nekk da nga jàpp ba set nga tàllal sa loxo nga ñaan yàlla lu tax ñoom ñu dem ci yàlla ne ko addoxoon na la rabaka wax ñaanal ñu yàlla sa yàlla ji eh, eh, eh, doon dem na ci ab yonent bi yàlla na ko ñaanal ñaanal ñu yàlla waaw donc yonent ah jamono yonent jamono yonent yi jiitu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm. képp koo xam ne danga amoon soxla ci yàlla danga daan dem ci ab yonent ba mu ñaanal la yàlla ndax yonent yàlla yu yàlla yonent boobu rek la doon permettre mm-hmm. koo xam ne da am accès ci ci ci moom yaa ngi dégg mais yooyu yàlla waxe bi ko waxee loolu yàlla def leen laaj weexal. mooy tuur deret bi. da ko nee na ñu rey nag. waaw. nag woowu xam nga lu mu leen coûté. lan ci euh, gàttal xisa bi. waaw mooy dañoo rey der bi teg sotti ko wurus ba mu fees. waaw. moom moo nekk prix nag bi mooy weexal bi wala yàlla doo xam ne ci alquran wala tastaru bi ayaati bi ayaati samanan qalila gaa yi ñu ne bul jaayee ca ay alquran bul jaayee sama alquran di njëggu yomb mhm. gaa yi ne déet njëg gi nam muñ ci kuy jaay kuy ñaanlu di di di jaay alquran waxuñ ci loolu liñ ciy nam mooy mhm. bul jëndee jëndee alquran ay atem mhm. bu ko jëndee euh, euh, l'islam yaa ngi dégg bul jël àddina li ko jëndee yàlla wala tasaro ay bi ayaati samanan xalilam ñu ne bul jëndee àddina yàlla fekk alquran dafa universel. dafa universel képp kuy jaay rek. waaw yaa ngi dégg te li ngay jaay concerné islam te ay atte islam di ci daw yàlla dafa la wax ne la loolu bu ko foxee. dëgg la ci jël tenir compte na ci at set sàmm atte yàlla yi. am na solo yaa ngi dégg. am na solo kon accident yooyu. Hmm. Euh, ma ma ma terminé foofu. waaw accident yooyu dafa nekk loo xam ne euh, mbiri jinne yi daf ci aju. Hmm. mu laaj ñi xam mbiri yoon ndax xam-xam. dafay dafa am ñoo xam ne yàlla dafa leen may ñu xam mbiri yoon xam ñuy mm. dëkkee yoon mm-hmm. xam ñuy ay dogayaat dogekati yoon dafa am ci zaahir ak ci baatin maanaam ci nit ñi ak jinne yi dafa am ñoo xam ne dañuy dog ay yoon mm-hmm. maanaam nit day jóg dem ci yoonam ñu dog ñu kar ko dafa am sarax dafa wér sarax sarax dafa wér ci lislaam yàlla ko reconnaître ndax yàlla moo wax ne innama la sadaqaatu lil fuqara wal masaakin mais lan moo baax si sarax par exemple nga yor sa oto xëy di war a génn soxlawul ngay ut sarax bu fekkee ne da xëy di génn da ngay jàng inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma ba saar ba jeex nga jàng ko juróom-ñaari yoon nga nga wax bismillah mhm. wa illaa booy génn sa buntu kër nga wax bismillah tawakkaltu ala allah mhm. wala hawla wala quwwata illa billah mhm. soo ko waxee mën nga loolu ñaan la boo xam ne pour pour tawasulu ci yàlla la pour mucc ci sayaatiin yi nga xam ne dañuy kar nit ki ci mhm. bu génnee këram balaa muy dellusiwaat ci këram bu dee waruwaayu oto la mag mhm. ñi liñ ci jàngale ci ay xam-xam bari pour mucc ci mais li ci gën a précieuse da gën a leer mooy jàng juróom ñaari inna anzalnaahu soo ko defee oto boo ko yëg di ko wàcc ci jàmm loolu xam-xam la xam naka yu allimu yàlla ma wax ne ittaqullah wa yuallimukum la xam ragal leen ma man ma xamal ko am na ñoo xam ne dañoo carré dañoo dof dañoo tëju tëj mhm. tëgguñu alxuraan soo waxee ñu la loolu du hadis mhm. yaa ngi dégg waaye yàlla ubbi na ay buntu yërmande yu bari lu ñu yëgut mhm. waaw macha allah nekk na lu am solo euh, dégg ngeen li nga xamante ne macha allah comme ni mu koy waxee à chaque fois l'incontournable Cheikh Oumar Diop li mu wax ci accident yi et que nekk na loo xamante ne am na solo bu baax a baax a baax te comme dama leen koy wax à chaque fois pour ne leen ngeen abonné ci suñu chaîne bi nga xamante ne muy seenu médecin traditionnel Cheikh Oumar Diop bu ko defee rek di ngeen mën a am lépp li nga xamante ne actualité la wala lépp li nga xamante ne ay jàngoro la ñu war ci andi solution donc macha allah gis nañ li nga xamante ne tey jii waxtaane nañ ko ci lépp li nga xamante ne am na ci accident bi ah donc di di ñaan jàmm ci suñu réew di wax ni chauffeur yi gën leen vigilant te nekk na loo xamante dañ koy ñaawlu surtout comportement yi nga xamante dañ koy gis à chaque fois ci ñi nga xamante ñuy sénégalais yi sànq ba may wàcc di gis maa ngi ñëw gis ñaari borom car yoo xamante ñu nekk ci tali bi di njëkkante comme pas possible. mu mel ni yëguñu lu xew. te malheureusement duñ ko yëg parce que ci réseaux sociaux yi. lii de dundul de mooy ñoom dañul ay nit. c'est ça en fait. du ñu ay nit 80 pour cent ñuy jëfandikoo lu bon. du question jëfandikoo lu bon dañu leen ay esprit ñoo leen di possédé. <laughs> gis naa loolu kay am na ci. ay nit sëñ bi yenn yenn affaires yi ko nit du def. <laughs> ba tax na sëñ bi. ci noonu la ñëw duggee ci li nga xamante ne tey leen andil war a waxtaan ak yéen xam ngeen ni comme ni ma la solution à nga xamante ay jàngoro la bio naturel là pour vous satisfaire mais bio naturel là pour vous donner n'importe quelle solution à votre maladie bio c'est la seule solution en tout cas bi nga xamante ne ñi nga xamante ne yéen a ko utiliser parce que comme ni ma koy wax booy utiliser dara am ci satisfaction yombul mais dañ ko am muy 100 pour cent satisfaction macha allah donc ba tax na tey jii nii lu leen andil mooy tey jàngoro bi nga xamante ne muy faiblesse sexuelle. dafa nekk loo xamante ne un sujet tabou la sujet tabou maanaam ñu bari duñ ci nag wax bu nekkee ci télé yi la des fois ñenn ñi duñ oser egg mm. au fond. du sujet parce que des fois da ngay wax ñu la non bëgguñu ci wax. Mm. mais ñin ñi nga xamante ne peut-être tey ñoo nekk ci page bi la plupart des personnes bu ñuy interpeller dañuy interpeller ci faiblesse sexuelle.